bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru bamsasin junnatun xarajtu yowma sabti saamini asar li xidmati lmuxtaari fi saxri safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sunu góor ga jàmbaar ja Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul génn ngir liggéeyal soppem ba génn ngir liggéeyal boromam subhaanahu wa taala ba tax at gu jot ci Sénégal ci monde entier ñuy màggal 18 safar ba tax Leral TV ñëw ak yéen ci ay plateau spécial ay émission yoonu màggal ay interview ay reportage bis bu ne da ngeen am ay émission yu am solo ci Leral TV yow mi am safar ne fi nga ne bëgg leeral ñëw couvrir sa safar leeral ubbi na la suñuy bunt dañ leen fekk ci seen i koñ yow mi soog a démarré ki ray nag ak ki ray gileem ak ki defar bañe ñoo ngi la leeral yemale daañu ñëw ba seen i kër ak seen i gox ànd ak yéen ci safar gi safar gàngoog ak group leeral média leeral TV leeral point net et leeral FM ñu leen buggee daañu ànd ak yéen di leen may ay kaddu yu am solo waaye rawatina yow mi nga xam ne mën nga ñëw woo ci suñu suñu service commercial contacté ñu gaaw ñu ñëw jaay la suñu marchandise Leral TV mooy télé askan bi daañu ànd ak yéen ci màggal gi jërë ngeen jëf.